dañoo ñëw fii donc woote woote daje bi pour déjà euh, waxtaan ak ñi nga xamante ni bii jàpp nañ ne ay acteurs lañu ci wàllu prévention santé parce que comme ni ngeen ko xamee fan yii passé dañoo seetlu ne jàngoro boobu ñu nga xamante ne bii moom la ñuy wax polio te nga xamante ne bii mooy làggiloo xale yi dafa commencé waat di feeñaat ci réew mi rawatina fii ci Touba donc te ay at ci ginnaaw jotoon nañu ko. jeexal fii ci réew mi ba jot certification waaye nag donc fan yi comme dañoo seetlu mu ñëwaat ñu ne nañu woote ginnaaw bi ñu defee ay constat de yi am fii ci dëkk bi nañu woote ndaje bii pour waxtaan ak ñi nga xamante ni bii ñooy chef de village yi chef de quartier yi ak yeneen acteurs yi ndax dañoo jëm ci li ñuy wax campagne de rattrapage ña nga xamante ne bii ñooñu xawoon a rëcc ci wàllu vaccination bi ñoom la ñuy jéem a dabe loolu nag pour ñu def ko faw ñu xam ne du wàllu docteur kese wàllu communauté bi la moo tax ñi sant yàlla bi nga xamante ni bi waxtaan nañu ak ñoom gis nañu ne ñoom ñëpp wane nañu seen engagement pour jàppale ñu ki ci jiitu nag mooy Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te moom nga xamante ne bi bi ñu ko ko waxee wane na ci maanaam euh, yéeneem accompagner état ci li nga xamante ne bi moom moom la nësër fii ci dëkk bi donc yéene boobu yoon la woon ñu yeggee ko ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy chef de village yi te itam laaj leen si ñu jàppale ñu pour que xale yi nga xamante ni bi dañoo ne jotuñoo def vaccin boobu ñu fexe leen génne ci kër yi ñu vacciner leen parce que nag jàngoro boobu nekk na jàngoro boo xamante ni bii bu dalee xale kenn mëntu ko faj comme kenn mëntu ko faj dañuy fexe ba euh, balaa mu ko dal jumtukaay yam war a am pour fàggandiku ko ñu jox ko ko ba mu mat sëkk loolu nag jur yi ñoo ci am wàll parce que xale bi bu xamoon la ci nar a fekk yaakaar naa ne balaa wayjur yooyu jóg moom mooy jógal boppam dem vacciné wu ji waaye comme moom tout tànk la xelam màccagul ci àdduna donc jur yi ñoom ñoo war a taxaw taxawaay boobu donc ñu leen di ñaax ñu taxaw ci xam ne xale dafa war a juddu dafa war a màgg dafa war a tekk ci dëkk dafa war a euh, nekk kilifa ci dëkk ak ay cëram yépp su sañoon donc loolu nag xale bi mënu koo may boppam faaw waajur ci weeru février la ñu amoon benn cas benn xale bu amoon ay jafe-jafe ci tànkam ñu def analyse bi ci leen gis ne feebaru polio la ci saa si kon day mel ni ñu déclenché ñu déclenché ci saa si riposte tàmbali riposte ba wër xool ci gox goxaat boobu xool yan ndax feebar bi wàll bi dafa gaaw gaaw boo xam ne foo ko gis rek da saytu ñaata xale la fa wàll ak ñaata xale ñoo ko bi ñu ko defee ci lañ gis ne daanaka lu ëpp fukki xale ci gox boobu gis nañ ci doomu jàngoro bi si ñoom am na ñoo xam ne nag euh, daaneel na leen ba jàpp seen cër mais am na si ñoo xam ne mu ngi ci ñoom waaye tëralu leen donc looloo tax euh, Sénégal dafa waajoon ci 2020 def campagne de rattrapage ci Sénégal gi yëpp waaye ak Covid bi mu wàññi ci euh, li ñu waajoon yëpp waaye it même niñ daan ñàkkoo sax mu wàññeeku looloo tax euh, vraiment bi ñu amee cas yi Diourbel ñu ne nañ tàmbali Diourbel après mottali ak yeneen région yi waaye xam naa bu yàggul dara incha allah dinañ ko jéem a mëtal donc ñu daje woon fi nii nekk tey pour waxtaan nag ñi nga xam ne ñoo nag ci gox-goxaat yi ñu xam li ci nekk lépp xam njariñ li xam solo si boobu ëllëgee bu ñu tàmbalee recensement bi ba pare ci war a xam ñaata xale lañu war a Euh, dab bu boobaa ñoom ñu jàppale ñu ci ànd ak ñun ba ñoom ñëpp ñu aar leen ba bu doomu jàngoro bi nekkee suñu biir it du leen faagaagal bu leen euh, indil benn jafe-jafe. enjeu bi rek mooy engagement communautaire bi ma wax ak acceptation mooy ñun kër docteur yi xam nañ risque bi xam nañ li ci nekk waaye bu ñu demee ci kër yi bu ñu nit ñi ubbilul bunt yi nangu ñu xool xale yi seen carnet déjà mën na am ay benn benn xale yu ñu nar a rëcc te kooku noonu bu ñu ko bàyyee bu jàkka bu rombee bu ko doomu jàngoro bi rombee mën na ko faat comme mën na ko euh, lompoñ loo te yàlla nañu si yàlla musal. donc wax fa dëgg yàlla li ñu ñaan daal mooy bu ñu benn xale rëcc ci dëkk bi ba boo nga xam ne lii fi dugg di dinañ ko dagg noonu la ñuy wax rompre chaîne de transmission bi ba jàllaat ci leneen ak yeneen feebar yu commencé génn lu mel ni rougeole ak yooyu daal ba def vraiment euh, nit ñi jëlaat seen euh, vaccination doom yi euh, defal ko seen bopp di dem ci vers les structures ñu leen ni ñàkk ñi nga xam ne comme ni ñu ko wax rek feebar bi di tax fagaru bi am solo mooy ku ci xas ba mu dal la mara day taal dañ lay mën a jàppale rek ci massage yeeg yooyu waaye dootul wér donc da ngay tane rek donc euh, li ñu leen mën a def mooy jàppale leen ba ñu leen di defal ay séance su massage dimbali leen hôpitaux yi fi nekk euh, Fawzey nekk Ndaamaatu ñoom ñoo fi am ay centre de rééducation ñu seet nu ñu leen mën a dimbalee ba ñu oyofal leen prise en charge bi pour ñu mën leen dimbali mais wér moom mënatul am looloo tax nag ñuy ñaan ñëpp ñu yóbbu seen doom yi ñu fagaru ba yàlla musal leen ci. Euh, feebar la boo xam ne mooy lompoñ loo xale yi bu duggee ci nit niñ koy amee mooy ci lekk yi lay jaar ci loxo yeeg yooyu ci gémmiñ euh, en général tamit euh, dëkkuwaay yu ñàkk set ba ki ko am. ay ginnaaw këram bu ko defee ci mbedd mi ngelaw li yóbbu ko euh, wala weñ yi tàcceeg yooyu mu tagaat ci ay ndox ak ay kii loolu moo indi tasaaro moo tax sanc fi nga xam ne nit ñi dañu dëkk te euh, gaanuwaay yi demeewul noonu wàllante bi day gaaw benn xale bu ko am rek mën na wàll ci diir bu gàtt lu mat ñaari téeméeri xale yu ko wër donc ñooñu bu ñu ñàkkuwul maara day taal yi euh, donc te bu la jàppee mën na sa sidditi lay jàpp li ci tane sax mooy sidditu loxo yeeg tànk yi mais am na si ñoo xam ne sidditu xol lay jàpp wala si du dënn te boobaa loolu day indi mu faat leen carrément euh, muy loo xam ne kon feebar la bu garaaw looloo tax bu ñu amee benn cas rek dañuy jàpp ne épidémie la ñetti weer ak genn wàll jëm juróomi at